on n'a pas apprécié euh, le niveau de batterie du coup ça nous a lâché un moment donc il faut que nous comprenions... fan la si on est dans quel pays on est dans des pays sous-développés selon le papier nous sommes euh, un pays pauvre selon le papier par rapport au euh, PIB bi au le revenu de chaque citoyen il faut faire la la pauvreté mais si suñ doon la pauvreté les ressources am-am L'Afrique Afrique moom pays bu euh, continent bu risque, riche comme nous ne ko pas ba mais mais pays d'Afrique sont les puissances mondiales. si c'était vraiment dañ ko si si des faits réels maanaam ressource mooy tax dëkk euh, am doole wala dëkk rëy wala dëkk am xaalis kon dañuy jël Afrique def ko continent bu gën a am xaalis te c'est un fait ba pare jël euh, pays yi pays d'Afrique yi ñu nekk pays yu gën a riche ci àdduna bi parce que buñ ko xooloon ci wàllu am am dëgg dëkk lu mu am pour ñu ne dafa riche mais comme ci ay këyit lañ ko teg

maanaam il faut nga jàng fi nekk ba pare parce que boo ko il faut nga comprendre li fi nekk ba pare parce que boo ko comprendrewul mënoo ko contourner léegi boo ko comprendre après nag si ngay mën na nag xool faay wala xool véracité wu kii bi ndax dëgg la pour nga mën a xool ndax danga koy contourner bu la convenir nga des ci bu la convenirul am nga sañ-sañu contourner ko wala am nga sañ-sañu bañ ko moo tax euh, ñun suñu problème dafa sorité dafa bëri dama ko don wax ci trauma bi dal depuis esclavage depuis depuis colonialisme depuis depuis guerre yi nga on nous a mêlé bokku ñu ci Afrique n'avait rien à voir avec les deux guerres mondiales mais on nous a mêlé quand même dessus on nous a pris comme des chers à canaux, en fait et puis avant c'était l'esclavage il y a eu plein de choses donc on n'a pas eu le temps de réfléchir par nous-mêmes de faire par nous-mêmes et de d'exploiter ce qui est vraiment en nous-mêmes quoi, pour pouvoir être riche parce que la richesse se trouve à l'intérieur même et de l'être humain et aussi euh, à l'intérieur toi de, de, de, tes, de, tes croyances ou tout ce que tu veux, tu vois. Mais là déjà, pour nous maintenant am dalu ko exploiter il faut nga déjà am calme bout il faut nga libre te nous on n'a jamais été libre libre pour avoir ce temps là ce recul là de réfléchir de nous connaître, de savoir qui on est, de, savoir ce qu'on veut, et de savoir où on est, et de savoir où on va aller, et comment faire pour euh, y accéder. De ce fait, on n'a pas eu ce temps, on n'a pas eu, en fait, euh, la pleine, la pleine, euh, si, la mentalité complète pour le faire, parce que on nous a jamais déjà donné ces opportunités déjà, on l'a jamais eu. Parce qu'un être, un être humain normal qui reçoit un choc, que ce soit euh, qui est témoin d'un accident ou qui, euh, que ce soit qui soit dans un, immeuble qui a pris feu, cet être humain-là a même besoin d'avoir un psychologue ou avoir un temps pour qu'on les mette dans des, euh, dans des, je sais pas, dans des gymnases et tout, et qu'ils et, se constituent en cellules psychologiques et qu'on les parle. Les Africains n'ont jamais eu ce temps. Les, Africains n'ont jamais eu cette cure. Depuis l'esclavage, que ça a fini, on nous a mêlés dans des guerres, dans, le colonialisme. Ça a fini, on nous a mêlés dans des guerres, les deux guerres mondiales qui ne nous concernent pas. Ça n'a pas fini, on nous a... En fait, on nous a mis dans un bain qu'on ne comprenait pas. En fait, on ne savait même pas nager et on nous a jetés déjà dans, dans la piscine. Et on nous a demandé euh, de faire des brasses, et de faire des papillons, et de faire ça, et de faire ça. C'est ce qu'on nous impose en fait. On pense, on pense pour nous, on ne pense pas par nous-mêmes, on agit pour nous et on décide pour nous. Et ça a toujours été le cas jusqu'à présent. léegi quand je jeex mooy li ma doon wax sànq si suñu premier vidéo bi coupé ne mënul jeex fileeg nit ki

xam gaay résumé ko ci ay convention taxi ay ki xam ba ci croyance yeex lepp lu fi am rek nit yi fi mu sañoo peuple yëpp si nan len euh, euh way régiré en communauté te ki di communauté di organisation te ki di organisation di en fait structure xam nga mu waaye mu am bop am am am yaram am tank. am donc société tamit non lay taxawé day day am bop am yaram am tànk moo tax sànq sama vidéo bi ma ne ñun nañu bàyyi di wax buur parce que il faut ñu raxas loolu suñu xel ba pare yooyu yëpp dañ ñu ko waxloo ñun lépp lu ñuy jël nii dañ ñu ko waxloo da ngay taay sax di toog di seetaan ay télé parce que da gis ne que même ñi woowee seen bopp intellectuel ñoom bu ñu toogee si ñoom ñëpp ñooy bokk même wax mais li ñuy bokk wax yëpp ñoom ay répétition rek la ñuy def.

contexte bu moy taxawé contexte bobu non tamit fay am yenen xétu yenen xam-xam pour régler situation bobu mag bi 1980 euh, boko indi won ni dékil ko fonction bu du régler dara parce que ba fan la donc donc temps bu ak milieu bu ak définir si moment bu nous nous définir donc ñun suñu problème suñu problème pour man dafa aaju ci bugguñu top nous nekk si ñun dañu nous rek nous. tam di nous ci nous rek nous top ci nous, nous rek ñu nous nous nous. ñu nekk ci société boo pour ne boo sax da ngay nekk problème pour lan marginal Nous après da ngay suivre après finalement après da ngay lâcher da ngay topp li jaaxal say mbokk kay moy lutax melo ni ñep te ñep mënu ñu melni kenn sa empreinte sax bokku ñuko ni ñu défaré ci xaal yu ñu défaré sax bokku ñuko tajil yaati ku nekk fa nga joggé ba ñëwaat fi sax bokko ko morom kon pour la ñu wara bokku vision ak gis-gis au contraire ce vision ak sama vision ak vision wu kële mo mën dajalo pour ñu mën am ben affaire bo xam ñun ñëpp koy bokko ben du du benn vision wu nit.

comme nga ne ceebu jën ceebu jën dañ ko wooyee ceebu jën benn tur lañ ko wooyee mais am na carotte am na ñaambi am na leneen am na ndox am na ceeb am na leneen donc Sénégal tam foofu la gars yi war a toll pour xam ne que déjà ñun lan lañ yore ñu ne ñun état lañ yore déjà ñu état bien que si nañu ay convention yooyu mais lépp li nga xam ne état noonu lay demee ñun demeewuñu ko donc mënuñu wooyee suñu dëkk état. ñu ne président la am non nañ jàpp ne que amuñu président parce que lépp lu président am si droit ci devoir ak ci limite ñun suñu président yi amuñu ko waaye ñu ngi lay ziar bu baax Tamsir ñun amuñu ko xam nga donc ñun tamit mu ñu woowee suñu njiiti ay président buur buur sax laa xaw a d'accord tuuti parce que buur moom mooy fal di fommi moom mooy tëj moom mooy rey moom mooy def lu ko neex peut-être que ñun am nañ ay au lieu de président donc ay roi parce que on on dit pas dans une république comme la France on dit pas euh, que euh, que Macron est un roi mais chez nous en Afrique non président on les appelle des rois donc il y a déjà un grand problème et qui a euh, qui est roi il a le droit d'avoir des sujets a le droit voilà d'avoir euh, droit de vie et de mort sur son peuple et c'est ce qui se passe chez nous donc euh, encore une fois Sénégal Fumutol, parce que là on parle de maintenant tay tay tay jii du ay mangi ngi dégg ay concert casserole bu ñu on woon Kër nous ñu casserole ñëpp tëgg xam bracelet

li ñu bëgg ak ñu ñuy def ba am ko étape yooyu noonu il faut ñu bien coordonné ko pour ñu mën a commencer sax dem ci benn xeex su ma rappelé woo bi Sonko di wax naan pare ngeen gars ne ko pare nañ mais gars yi pare wu ñu parce que jàpp nañ ko nii ana gars yi lan lañ teg lan lañ teg comme lay ñu ne dañ dañu liggéey imaginez imaginez le degré de lâcheté boobu imaginez degré de lacheté boobu imagine leen Sénégal ñu ne ñoom yàlla lañ gëm ñii ne Serigne Touba lañ gëm ñii ne Jésus Christ lañ gëm ñii ne Baye Niass lañ gëm ñii ne ñoom am nañ baatin ñii ne ñoom dañuy takk ay ndomb ñii ne Serigne bee moo fi gën a ay waaye ñoom ñëpp ñu dajaloo ne Macky Sall kenn nit moom moo leen liggéey ñoom ñëpp. c'est en fait en fait après doo doo comprendre yow nan nga mën a qualifier boobu peuple. benn nit liggéey 17 millions d' habitants 17 millions d' habitants yooyu bu ñu nekkoon sax ay nit yoo xam ne gëmuñu dara wala mais ay nit yoo xam ne nee na ñoom dañoo gëm yàlla gëm nekk dara mënu leen laal lu dul yàlla mu soob yàlla xanaa yàlla mayul Macky Sall doole nekk léegi man maa la may pouvoir yow nga nga noot Sénégal yëpp nga moom Sénégal nga jàppale ñoom ñëpp noot yàlla du defee noonu. su ko defaloon Macky Sall defal ko fiir yi doon xeex ay waaye yow yonent yi ba ñu noot leen ñoom ñëpp defu ko parce que àdduna du demee noon parce que yàlla suñu biir sax du demee noon yàlla sax du boole ñëpp noot yàlla sax du def lool yàlla daf lay jox jox sa liberté jox la sa truc donc ñun nañuy génne yenn ci yàlla mais Sénégal dafa nekk nit dafa nekk dëkk boo xam ne nit ki saa yu ko arrangé rek lay indi yàlla teg saa yu ko arrangé rek lay jël benn concept teg ko arrangé bëgg bëgg expliquer état bu mu nekk rek lay jël lu may wax loolu ci alxuraan wala tur rek teg ko mais dëkk mënul demee noonu te dëkk tamit mënul demee ci ci ci ci en fait dëkk mënul demee en fait ci ay euh, en fait état d'âme état d'esprit ay émotion ay ay raconté ay histoire fii kii moo fi defoon lii kii moo fi waxoon lii man sama maam lii man tamit bi ma defee lii man jaar naa fii man dem naa Sorbonne du loolu dëkk le concret loo xam ne au jour le jour la li ngay def au jour le jour bés boo yeewoo ba bés bés boo rek bés la te bés boobu da ko war a remplir par rapport ak bés boobu lu mu laaj potu ndaal la bu taxaw nga war ko duy bés boo yeewoo xam nga yow li li nga ci war a duy yow sa wàllu bopp yow. mooy li nga xam ne yow moom nga euh, moom nga kii wax sa bopp maanaam bu dee jullit nga ngay julli di woor di def si jour boobu lu baax bu dee catholique nga tamit pare ngay julli di def say kii bu dee gëmoo yàlla nga gëm li nga gëm yow tamit nga jëmmal loolu et tout mais loolu intérieurement mais nag li nga xam ne ne boo génnee ci mbedd mi yow wax ñëpp ko bokk parce que sa néeg yow yaa ko moom am nga ci sañ-sañ mais boo génnee si diggu kër gi yow wax ñëpp ko bokk amatoo ci sañ-sañ lu dul sañ-sañu li nga xam ne moom lañ régir ne fii nii la war a mel boo génnee ci koñ bi sa koñ la waaye da nga ko bokk ay nit waaye boo nekkee ci dëkk bi tam sa dëkk da nga ko bokk ak nit il faut ñu xam paaree ba pare te ñu dindi di wax ay Macky Sall buur ak ay nguur ak ay yàlla mooy fal yàllaay folli nañu dindi loolu suñu bopp yi parce que buñ ko dindiwul suñu bopp rek bàyyi booy dañ dañ en fait en fait duma ne sax ay avancé parce que yoy doone ay nit avancé wu lay mais xam nga dañuy dund rek di xaar suñu dé ñuy dé après xam nga di jour di dé dañuy melni ni mala yi rek dañ fi ñëw di feebar di jour di dé du ñu sax comprendre ñun sax suñu mission sur terre lan la mais comme ñun africains wala pauvres ñun dañu deflo suñu bop yi nek ñun da nga wara a ñëw rek dund nga toppatoo sa njaboot après nga out lo lek out lo nan out auto out kër après dé ñëw nga dé

xam nga am na carreleur xam nga fi may expliquer am na peintre yooyu yëpp am na ci kër gi xam nga après am na tamit électricité bi ñëw pour taal ko mais am na tamit feneen fu ndox pour jóge pour dundal kii bi donc dafa bëri dafa am lu bëri loo xam ne moom mooy taxaw pour tey ñu ne kër gi kër gi taxaw na donc loolu yow munoo nekk ne man damay juddu nekk ci fii toppatoo sama bopp kese xam nga toppatoo sama bop toppatoo sama njabot dund sama dundu après ma dé mu munoo di xalaté non wala di wax lolu xam nga lo gis na man sama yon nek ci manu non non yow manu wo dé da nga limité da nga xamul sax yow lan mo la fi indi da nga xamul sax yow sa manu lan la manu wo dé da nga xamul sa wàll lan la parce que manu du tok di sétane lu bon nopi ci manu du tok di gis lu ñaaw nopp ci maanu du toog di gis lu jaaduwul mu nopp ci te bu laaloon doomam léegi moom mu génn ci mu génn ba pare bëgg ku ko ci jàppale tamit sama xol balaa muy gën a metti ma gis nit ñu jàpp doomam walla ñu rey doomam ñu dégg ko micro mu ne moom sax yoonam nekku ci woon dafa demoon liggéey mais ana ay du yam ci bopp boroom boo fayul ay ba ay ñëw kay mun na laal keneen psychologie boobu sax moom sax pourtant marchul woon fii rek la toogoon moom sax bokk ci woon dafa génnoon rek di kii mais ana ana ana ay du yam ci boppu borom moo tax ku si nekk si ñun war nga mën a dindi ay xeex ay ba ay boobu du am boroom ay boobu ñu neutraliser ko ba ay dootul am loo xam ne ci nee na viol la jóge viol tey amatul benn Sénégal buy wax waxu Adji Sarr amatul kenn kuy wax ay waxu Mathiam kenn waxatu fi Mamour Diallo kenn kenn kenn waxatu fi kii mbay xaw ma nan bu waa jooju xaw ma nan mbay kenn waxatu fi parce que fala la affaire yi commencé ñu ne gouvernement bi di leen kii rek lu ñëw rek ñu rombal puus léegi si sac portable lañu wax

mati trois pommes des gâteaux yooyu yëpp yow chaque jour rek ñu jox la benn pain ngay lekk si ña ña ba jour ba dee jot yow nga dee sama morom ñëwaat nekk si pain boobu ña ña ña en fait xamuñu ñun sax ñun lan la ñuy def te liñ lay wax loo yëpp dina ko def loo chaque jour teg seen presse teg seen seen média teg loolu yëpp rek pour chaque jour rek yow di la teg fi nga nekk la ñoom di dund lu ñu nekk ba sa dee jot nga dee ñu ne yàlla moo ko dogal sa doom ñëwaat tamit ñu teg ko foofu seen doom ñëw jiite leen waat yow sa doom toogaat waa yàllaa ko dogal ba dee tamit ñu ñëwaat président yi tamit noonu ñu leen di teg benn par benn jour bi ma gisee li ma gën a naqari mooy bu ma toogee di gis benn nee na intellectuel xam nga ñoom Sénégal mu ay diplôme la leen di jox ñu toog teg seen bopp intellectuel xamuñu dara sa àdduna ñoom nag bu ñu toogee naan la ay way Macky dañ ko fal démocratique Macky ken faluko ko démocratiquement Macky il faut ngeen comprendre que France moko fi teg Macky bika Abdoulaye Wade joxee lépp bika Abdoulaye Wade joxee lépp mu dem ba président assemblée nationale nga xam dara teew ko Abdoulaye Wade jox ko lépp jox ko ministre de l'énergie jox ko ministre intérieur jox ko euh, premier ministre jox ko président assemblée jox ko lépp jour boobu la ko njëkk a war boobu boobu la ko tubaab bi nag am nga doole léegi songal doomam parce que point faible kii doomam la mu song doomam mu song doomam parce que boobu Ablaye Wade commencé na di rebelle wu di commencé di indi ay truc di génne ay armée française di commencé di teg ay affaire naan waaw l'Afrique di bëgg indi truc te loo sax njëkkeew ko woon moom Ablaye Wade loolu moo doon njëkk a doon problème am dafa dem ba après bëgg ko teg mais bu ñu xoolee faiblesse am muy doomam fa lañ ko jaar jël ki nga xam ne moo ko gën a tafu mag yi ñu ne ko song ko pour après ñu jox la réew bi bu ñu ko songee xam nañ psychologie sénégalais sénégalais du faral ku ñu tooñ du ànd ak kuy tooñ ñu jàppale yi moo tax la preuve bi yi doon xeex di dem di ay kii yi dañ ko jox xaalis mu dem di def tournée moom mu toog fii wax lu dëgg naa leen Bokar Dia moo ma jox xaalis dafa am benn kii kee kii jaay ceeb moo ma jox xaalis gars yi ñoo ko financé pour mu dem defi campagne am fan laa amoon doole boobu noonu dañ ko préparé teg ko kenn rek moo leen rëcc muy Sonko mi moom la ñu préparé wu moo indil problème Sénégal yëpp indil problème tubaab yi ñëpp parce que gisuñu ko bi muy ñëw te moom it sax xamul woon ne moom day ñëw parce que si dàq rek lañ ko si dàq rek la jóge rek affaire yi yëpp am Sonko juddu mais préparé wu ñu ko woon ñu ñu préparé waayu système bi ñoy ay ñom ay Khalifa Sallaax ay ñom bobu ki yoy la won genre ki yoy la won ñom ñooñu leen préparé Sonko mo nekkoon li ñëw rek fuk seen petit des fois gars yi dañuy dem ci yenn affaire yo xam man damay tok des fois di ubbi ki di xol émission def le tour mais nga nan dëkk bi pareegul sax pour yew néew ma yeewooguñu dañoo pareegul sax pour yeewu dañoo pareegul dañu nangul en fait dans leur tête nanguwuñu yeewu parce que ñoom pour ñoom yeewu nañ te kooku ci wax mu xas la nag te boo ko waxee lu tax yeewul it mu mu fëlan ko maanaam deni ñun deni moo jàpp deni du ñu nangu mais ñi ngi ñaanal ñi ngi ñaanal Sénégal mu am benn déclic lu tax ñëpp jub te du doon loo xam ne malheur la pour gars yi doog a jóg fekk mu taar wala yooyu nag ni ngi ñaanal Sénégalais yi conscient léegi jóg te xam ne benn bis bu nu jógee Macky Sall bàyyi yëpp benn bis bu Sénégalais yi jógee Macky Sall bàyyi lii yëpp mais Sénégalais yi war a jóg ñu ngi làqatu si dañ leen liggéey ñun de ñu ngi jóg fii fi ñu nekk nii bu nekkoon Sénégal di leen jug mais comme si réew yi lañ nekk fi la ñu yàlla stade ñu ngi fiy jóg. maa ngi nag woo ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fi itam comme d'habitude rek ñu dajee république si kanam nii incha allah jóg xeex suñu wàll si luñ ko mënee ak fi ñu ko mënee ak fi ñu toll noonu pour mën ko def ñi ngi ñaanal Sénégal jàmm xam nga waaye jàmm mënul lalu ci dëgg ñi ngi ñaanal Sénégal jàmm waaye jàmm mënul am fu dëgg amul mënuñu ña ñi ngi ñaanal Sénégal jàmm waaye jàmm mënul am fu dëgg amul ñu ngi ñaanal Sénégal jàmm waaye jàmm mënul am fu dëgg amul te Sénégal dëgg amu fa te yoon amu fa donc il faut ñu instaurer dëgg instaurer yoon pour jàmm mën a am parce que loolu moom mooy chronologie bi nga xam ne moom mooy bu gën a évidente moom mooy bi nga xam ne moo gën a jaar yoon wasalaam bi ba Arif à tout à l'heure à place République jaaraama